dalen ak jam fi ci Dakar muy dekk buy dox te bëri yëngu nek xolu rew mi fi koñ bu ne amna na bu mu lambo xar kanam bu ne lay woné muy selbe yoonu ak ju dajja ak jamono nak mo waral mu bari melo lol Dakar dafa boole doole ndaw ak xam-xamu mag suñuy xalaat suñuy mbëbët ak suñuy yitte loolu mooy li ñu boole ba noppi di suuxat suñu diggante yitte jooju ñu ànd bokk mooy solo suñu booloo gi ñu booloo ci ginnaaw jëmm yu lamboo yitte yooyu teg si di ko dund ak ñun kooku nag Amadou amul lenn lu ñuy def ci Ndakaaru te duñ ci bokk yéen laa bokk ndax ñun ñëpp Dakar Моню боли.